بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه لوين موكي القرآن سنة ركب الانزيار لين الله سبحانه وتعالى يتوفيق توفيق لفلنكو فيديو بيقى خامني مملا لا بارام Ahmed Diop bu Thiès di ci di ci wax li tax ñu teg sunu baaraam mooy li waral ñuy teg sunu baaraam ci ay vidéo ci groupe bi ak yeneeni groupe suñu gisee ne am na lu ca nekk wala lamboo naag ay mbir yu teeg li ñu xam ci alquran ak sunna ak dégginu salafu salafu saalix ah bi nag tey ci ñaari anam comme niñ ko faral defee ci lañ koy jàngatee anam ngi jiitu day dellu ci li nga xam ne mooy forme bi anam bi ci eh, topp dellu ci li nga xam ne mooy fond bi waaye ngir tënk fond bi ak form bi mooy ne vidéo la boo xam ne bu bari lënt la bu bari njaxas vidéo la boo xam ne daraay xam-xam nekku ci waaye ki kii wax dafay jàpp ne li muy xam-xam la vidéo boo xam ne ay affirmation gratuite moo ci nekk vidéo la boo xam ne wala boog maxta bi maxta bi xam lañ teg sunu baaraam li ci nekk eh, doonut ludut solal dëgg mbubbu caaxaan jël ca caaxaan solal ko mbubbu dëgg lu ludut defendre waa bidaa xas ngañ waa waa sunna waa Ahmad Diop koo xam ne mu ngi koy topp ci at yi ñu génn ba léegi di gis ne yoon woowu mooy yoonam du dénoncé du mer du wax wax yu ñagas ludut ne wax yu ñagas yooyu mi ngi ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci waa sunna yi ndax gisin boo xam ne dafa wute wuteeku gisinam loolu moo ñuy permettre njëkk ñëw ci première point bi ci forme bi wane li nga xam ne mooy tanaqud at gi nga xam ne waa ji euh, tabbi na ci te wallahi da ngay yéemu ci yàlla naka la nit mun a tabbee ci tanaaqudaat yu leer nii yëpp di ko wan ne li mu nekk ay caaxaan la yoon bi mu jël yoonu nen la waaye mu mel di ko gis mu mel ni dafay dafay gumba yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala ginde te musal ñu ci ak akuk réer ko inxiraaf ginnaaw ba mu ñu wanee li nga xam mooy dëgg Ahmed Diop lépp da koy wan doxalinam ci sax taxaw am saxaw seetlu gu tuuti rek dina gis ne yoon jël na yoon woo xam ne ci guuta la ko ci guuta ko lu ko jëmale bokk ne ci li nga xam ne noonu la xamee wala bokk ci yoon yi ñuy xoolee ay wax ndax wax la joo xam ne ñu dëggu la te wax ju dëggu jëm ci sharia mënta jógale ci yàlla sunu boroom nees koy xamee mooy xool na wax jooju wala boog jëf yooyu ndax amut ay tanaaqudaat fa nekk ndax lenn lu du wecci du weddi leneen la yàlla subhanahu wa taala bokk na ci alquran ni ñu digal ngir xam dëgg gu mu dëgg xam ne ci yàlla subhanahu wa taala la jóge mooy daal di koy tadabbur afala yatadabbaruuna alquran ndax ñoom du duñu di settantal alquran dañu war ko settantal ndax suñ ko settantalee bu baax a baax dinañ gis ne alquran gi dara ñëw di weddi la ca des lépp dafay dëggal la ca la ca des loo si jël rek day dëggal leneen la su fekkoon ne nag keneen la jóge di ngeen ca fekk ixtilaaf gu bëree bare bare bare bare bare bare su fekkoon ne daa jóge ci keneen ku dul yàlla suñ borom cee fekk wute gu bëree bëri moo tax képp koo xam ne fa ngay tibbee nekkul alquran sunna sa bànneexu bakkan la ak sa déggin xam ne déggin bu euh, bu wàcc yoon la ngay gis ne soo seetlee waxam yi jëfam dañ koy gis ay daat yu bëree bëri moo nekk ci vidéo Ahmed Diop bi Ahmed Diop li nga xam ne mooy vidéo bi fekkee ne war naa njëriñ nit ñi mooy dana war a jëriñ ci lan mooy dana war a jëriñ ci ne lii di yoonu dénoncé ña nga xam ne moom mooy ña nga wuteel di yëkkati sa kaddu di ko jëmale ñoom foo toll nekkut yoon bu baax lii tamit di taral jëma ñi nga wuteel loolu nekk kot yoon bu baax Ahmed Diop lii mooy li nga xam ne moom mooy kàddoon waaye ci njëlbeenu wax ji rek mu daal di weddi loolu ay jëfam daal di koy weddi wallahi alazim lan la njëkkee mu ne ñi nga xam ne ñoo gën a yées wax jooju wax ju tar la wax jooju waxu ku pànk la wax jooju waxu nekkut waxu wax ju tey nekkoon wax joo xam ne wax joo xam dafa ànd ak li nga xam ne moom mooy moom mooy léyin waaye Ahmed Diop fa mu tàmbalee mooy ñi gën a yées instant yi gis ne kii li muy wax nii yitteel na ko kii li muy wax nii wax na ko pànk kii dam ñi muy wax da leen a da leen a mere wax nii da leen di da leen di da leen di ŋàññi ñu ñi ma dañu yées cab kuréel mooy ñi nga xam ne seeni kàddu sañ koy yëkkati rek mooy jëmale ci nga xam ne ñoom la ñu wuteel mu tàbbi ci benn tanaaqut su fekkee ni ñu ci kuréel moo ñu doxale noonu lu tax Ahmed Diop moom mu mën a jël kàddoom di ko yëkkati jëmale ci ñooñu te loolu ñi ko yéer ci ab kuréel ñoo koy def te saa bu yëkkatee kàddoom Ahmed Diop saa bu yëkkatee kàddoom rek di dénoncé dara xamal ne ñi muy dénoncé mooy ñii muy dénoncé tey jii ci vidéo yu bari dénoncé na si ñooñu su leen su ko waxut mu leer bu gaaru gaaruwaale leen ana li mooy xalaalun na wa xaraamun alaykum su fekkee ne seen bidaa yooyu seen caaxaan yooyu ngeen nekk képp ku ko dénoncé kooku moom mu yées ci kuréel ga mu nekk waaye yéen fekkee da ngeen di dénoncé ñooñ bokkoo leen ñu yées ci kuréel ga ka nekk kon xanaa ay kuréel ga nga ne yaa ci yées te yaa ngi dénoncé ñoo xam ne bokkoog ñoom li nga xam ne moom mooy mooy gisin yaa ngi dénoncé ak kuréel ba yaa leen dénoncé dénoncé woo ko sax ci ak layin dénoncé woo ko sax ci li xam mooy mooy li nga woo nit ñi ci bañ a taral yaa ngi koy dénoncé ci ak tar ñoo yées allahu akbar subhanallah al azim ndax lii comme xel di nga ko nangu te li wuteleeg ñooñu mooy li mu wax nii ne ñi yées ci kuréel mooy ña nga xam ne ñoo yëg seen kàddu jëmal benn kuréel loolu baatil la loolu ma anzalallahu bi am sultaan du wax yàlla du waxu yeneen du wax kenn ci salaf saalih dinañ ci ñëw ci li nga xam ne moom mooy mooy fond wu fond wax ji te waxam ji yëpp nag nii lay mel Ahmed Diop dafay ñëw di affirmer mbir boo xam ne wallahi yàlla waxu ko yeneen sallallahu alayhi wasallam waxu ko wax ji mu wax ni baatil la dañuy yëg ci kuréel mooy ña nga xam ne dañuy dénoncer ña nga xam ne ñoom lañ wuteel loolu waxu wax joloo xam ne waxi mënut a ci lu iblis bal yàlla subhanahu wa taala ña mu ci alquran te niñ ci ñëw ñii ñu tagg ci sunna ña nga xam lañu borom xam dan nan lañ taggee ñoom ñooy borom salaf saale mooy ña nga xam dañ taxaw di dénoncer ñi nga xam ne ñoom la ñu ñoom la ñu wuteel naka la mën a nekkee la nga xam ne mooy gën a yéer ci kuréel mooy ñuy wuteeg ñooy dénoncé ñooñu wuteel yëkkati seen i kàddu jëm ci ñoom su fekkee ne ñoom dina li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna yaa subhanallah mais loolu dinañ ci dellu ci li nga xam ne moom mooy fond bi ci bi moo tax ñuy wax lii ngi wane ne waa ji su fekkoon ne la mu wax dëgg la sax su fekkoon ne kon ñooy yées mooy ña nga xam ne dañuy yëkkati seen i kàddu rek dénoncé fekkoon ñooy yées mooy ñi nga xam ne dañuy dénoncé dañuy dénoncé dénoncé bu tar ndax Ahmed Diop nekkul ci loolu nga tàbbi nii lan moo la ko daganalal lu tax mu dagan ci yow daal di xaraam ña ca ña ca des beneen mbir bi nga xam ne mi ngi fekkoon ne yàlla muurul xelam te maa ngi ñaan yàlla yàlla bañ a muur xelam ba mu mën a xoolaataat xalaataat bu baax a baax mooy ne Ahmed Diop wallahi la azim ak ñi koy déglu di ko jàppale ak ñi nga xam ne suñu waxee pare nañ tàmbalee wax seen i wax yi tàppale ñu faral di wax loolu dëkkut moo ñu euh, amuluñu benn benn benn benn. solo mais ñu mel noonu su fekkee ne ñoo ngi xalaat rek nañu xalaat ndax amut lu gën a wone akuk riir lu gën a wone ak wàcc yoonu alquran ak sunna lu gën a wone ak jëhal ak ñàkk xam nga nekk ci dëkk mel ni Sénégal dëkk boo xam ne ñii dañuy saaga yàlla suñu borom fan yi lañ gis ab kilifa ci ñaseen yi taxaw yow ma yowmal qiyaam dafay su nit ñi duggul li nga xam ne mooy yàlla su daal di ñëpp suñu ram pare moom des ay nit moom day jël song yàlla wax ci wax yu ñaaw jël nit ñi daal di dugal Ahmed Diop loolu du taxaw du tax mu njëkk ci kaw min baram di wax dara ñooñu nekkul ñoo yées ci kuréel yi déedéet ñooñu yéesul ci kuréel yi Ahmed Diop. yéesul moom ci moom yéesul ci kuréel yi ay nit ñoom dañuy taxaw daan na yàlla su taxawoon yéen yàlla su ne yàlla mi ngi ne yonente moo ngi ni ma ba fay yàlla ku tam dem ci li nga xam ne moom mooy sama sëriñ pour Ahmed Diop nekkul loolu mooy yées ci kuréel ñooñu yéesuñu du ko taxaw ci ci ci min di leen wax sax loo xam ne danga naan lii su waxoon mu layaat ñoom la jëm Ahmed Diop bokkul ci bokkul ñu yées ci kuréel bokkul ñu koy tax a jóg di wax di dénoncer. bay wàcc ay li nga xam ne mooy ay principe parce que moom soo ko déglee principe am nekk ko di jël ci yeneen kuréel yi tarif ñoom li koy tax wàcc principe am du loolu ñi koy tax wàcc principe am nekk ko ñooy taxaw ne duñ julli duñu woor ñoom ñu ngi ko tax wàcc nag ñi nga xam ne léegi dafa ànd ak ñoom mooy ñi xam ne dañuy gàmmu di màggal di di di di di déedéet ñiy taxaw ci tele bi di di yàllal seeni sëriñ ñiita xaw si télé bi di saaga saxaaba yi di saaga ahadis di saaga buxaari di saaga muslim am jub loolu jàpp ñoon ñu yées ci kuréel yi ñi yées ci kuréel mooy ñan mooy ñiy dénoncé ñooñu cest ñi nga xam ne saa bu ñu taxawee ku taxaw yàlla saaga yàlla ñu taxaw ne la ngay da ngay defen ku taxaw ku taxaw daal ne may yàlla ñu ne waxu dëgg ku taxaw ne ah yow man yonent laa ñu taxaw ne doob yonent ku taxaw milliers yi nga xam ne nga xam ne chaque jour Sénégal gis ay vidéo yu bari yoo xam ne lépp lépp lépp lépp lépp bañ bu ca dara dee dafay ñëw di xotti wormaay yàlla ko gënan taam waxuma ne sax di nekk ab bidaa kese waxuma ne sax ñu fay bokkaale yàlla sunu borom waaye dañuy jël diina daal di koy jaxase Ahmed Diop jàpp na loolu nekkut mooy ñi yées ci kuréel yi waaye ñi yées ci kuréel mooy ña nga xam ne ñooy taxaw di dénoncé ñooñu wallah wallahi adim wallahi su fekkee ne lii mooy dëgg su fekkee ne lii mooy xam-xam su fekkee ne lii mooy xikma su fekkee ne lii mooy ñor su fekkee ne lii wallahi yàlla bu ñu ñor yàlla bu ñu xam-xam su fekkee ne lii la wallahi lii réer la lii mooy aynul jahl kuy wax wax ju mel nii di doxalee dox ni wallahi anta ajhal min mahiyatil jahl ko dudul jahl boo xam ne yaa ngi dox sa ñaar tànk ci kaw suuf waaye da koy jël solo ko mel ni luy wax nii xam-xam la ñi gën a yee ci kuréel yi mooy ñi nga xam ne ya ya cheikh wax jooju foo ko jëlee fan lan may dalil ci wax ju mel noonu mais doon nañ ci dellu si ci li nga xam ne mooy mooy mooy fan Ahmed Diop kon li nga xam ne moo koy merloo li nga xam ne mooy tax moom muy taxaw à chaque fois suy gis xutba nga gis na muy tar mooy ñi nga xam ne ñooy radd tasawuf ñoo ñooy réeral nit ñi pour Ahmed Diop ñoo ñoo jar a dénoncé ñoo ñoo jar a xeex moo tax kii nga xam ne mooy bokk na ci gën a tasaare bid'a ci Sénégal bokk na ci gën a tasaare caaxaan juru dul cooloo ko jëlee ma Sarr mu jël ko tasaare kon déggul leen xutba bi wallahi azim nit xam ne am nga xel teg nga sa tànk baaram teg ko ci sunna rek soo fekkee ne ku mel ne Matar Sarr na sa xutba daal koy tasaare koo xam ne Tidiane la kan muy défendre mooy Ahmed Tidiane Chérif te peut-être euh, li Ahmed Diop da koy défendre mooy kam dafa taxaw. nar-nar yu dul jeex ñépp di ko gis ba xatta ci suuf yi ay nit taxaw ne kii nii amul ku ko dàqanar ci histoire ci histoire islam woote woo ay mbir yoo xam ne oqalaa yi waxuma la borom xam ne dañoo dëppoo ne lii kadib la dañoo dëppoo ne lii ay kufriyaat la dañoo dëppoo ne lii ak réer la ci lu ner nañ ku mel ne loolu lay défendre ci loolu lay xeex koo xam ne moom ci boppam Matasar boobu noonu bokk na ci nga xam ne ñooy gën di jëkkali seen kàddu di ko jëmale ñooñu d'accord su fekkee dafa jël moom euh, audio xutba euh, Ahmed Diop mu jël ko di ko tasaare gis te moom boppam sax nga xam ne kon mbir gi am na lu mu baree bare bare lu ñuy findeel ci riirug ci neen gi nga xam ne waa ji moom lay tasaare da ngay kon ne ñuy tax naan la euh, sunnit bu radd ahlu sunna subhanallah al azim suñu yi lan lañuy radd lii suñ ko leeralu nit ñi lan lañu leeral nit ñi dañuy naan waa ahlu sunna dafa ni ngay waxee du nii mel ni ñoom moom sunna kum neex ñu dugal kum neex ñu génnee wallah wallah lii su fekkee ne mooy sunna da ngeen lii mooy sunna ana sunna lii ana sunna ci naral duural alquran sunna lii munta wessu dural alquran sunna taxaw ne amam sunjit laa nit ñi kon jàpp ne ah ki li wax ni alquran sunna ko jëlé ngay jël di wokkati di joggati alquran ak sunna niñ ci jël ben par ben sunna duggé ci forme bi ndax dama nekk tay li ni ci liñ nekk ni premier point bi moy ci forme bi li feeñ ci forme bi mooy Ahmed Diop li ko merloo li tax mu mer ñu may dénoncer ñi tax muy yek ci kaw baram kon la chaque ne nekkut waa tasawuf ndax moom jàpp ne ci ñoom am na ay wàll yi ñu ngi ci ñëw ci ñoom am na ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ waaye ci ñuy dénoncé ñooñ moom ñooñu munuñoo nekk ñu baax ñoom ñooy ñu yées ñooñu mun a amuñu problème ci tawhid amuñu mënu leen a joxoñ benn baaraam ci ne leen lii ngeen tàbbi ci bidaa loo xam ne sax dañ cey werante na bidaa du bidaa mënu leen koo joxoñ waaye ñoom ñoo yées allahu akbar ana seen miisaan saa ma taxkumuun ana ci ban miisaan ngeen di nattee mbir yi wallahi alazim ci ban ci ban balance lañuy lay ngeen di Abba Diop la nattee mbir yi ñooñ ñoo ñu yées ci kuréel yi ñi yées ci kuréel nekkoon ñuy bokkaale yàlla suñ borom ñi yées ci kuréel nekkoon ñi nga xam ne ñooy ñooy defee bidaa ñi yées ci kuréel mooy ñan mooy ñiy defaat nu bokkaale di ko ñiy xeex bokkaale di xeex bidaa ñoom ñoo ñu yées ci nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy kuréel yi nga xam ne loolu jóge wut ci lu wax koo xam ne dafa mer lan moo ko merloo dafa merloo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy wax ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy waa waa bida waaye bokk na ci melokaan yi nga xamee ne nit ki ci bànneexu bakkan la nekk melokaan yi nga xamee ne nit ki ma nga jël tànkam teg ko ci bidaa mooy ka nga xam ne suñu waxee li nga xam ne mooy suñu raddee waa bida mu daal di mu daal di mer koo xam ne suñu waxee dara ci li nga xam ne mooy waa bida mu mer Ameth Diop moo koy merloo lii rek ku seetle at lii rek moo koy tax a jug gàmmu war ñu gàmmu wana nga xam dañuy wax ne duñoo am madhab loolu rek mooy tax Ameth Diop di jóg di wax li nga xam ne moo des na am Sénégal di tàq ay nit di bokkale yàlla di sosal yàlla sunu boroom Ameth Diop du ci yéeyi daal di daal di am su ma loolu liñ koy raddee mooy daal di jàngal nit ñi usul yi comme moom ni ñu ko waxee ne yaay day jàngale usul yi mooy ne ñoom ñi nga xam ne moom Ameth Diop moom ni ngi jàngale usul yi moom ay juum wala ay vidéom nit ñi duñ ko duñ ko tasaare ne a ah, xool leen kii macha allah waaye ne niñ tasaare kontaan moo ñi nga xam ne ñoo di radd su fekkee ne lañuy radd sax ànd la xam-xam la chekk ne su fekkee ne radd la bu ànd ak loo xam-xam la chekk ne ku ko tasa tasaare nga loo xam ne jox xam-xam waaye mooy loolu mooy su fekkee tasawur am ñoom ñoo xam ne ñu baax lañ am na ñoom ñoo xam ne insaaf bi day ñëw saa si kay am na ñoo xam ne ay su ay sunnit lañ waaye ñi nga xam ne ñooy radd moom ñoom ñëpp dañ dugal lañ ci benn mbuus rek ñooy radd moom la ñuy dégg coo xam ne ma amut insaaf googu mooy radd yooyu rudd yooyu noonu di wax tasawur du tegoo ci xam-xam ada bal seen wax yi moo teguwul ci xam-xam te mënu leen koo leeral ci dara waaye Ahmadu su fekkee dafa jàpp ne kon mbir yooyu ni ñu koy leeralee mooy ci usul moom moom day leeral mooy ne moom mbir yooyu xam na ko waaye na koy leerale mooy jàngale jàngale teg ko ci xam-xam ata yëpp waaw lu tee kon nga jàngale ci xam-xam leeral yoon bii ñi ñi yées ci kuréel nga leeral leen te leen rodd lan moo tee kon njii nga ñëw di di leen di xutba ca ñoom mii nga xam ne ñoo yées ci kuréel yi ñi nga xam ne dañuy ñëw di laan tasawoo tasawoo te ñooñu moom mënoo leeral seen i mbir rek ci la ngay jàngalee usuli bañ leen a bañ leen a radd su fekkee ne sa usul yooyu ngay jàngale su fekkee ne noonu ngay jàngale xam-xam boobu nga ne moom ngeen di jàngale macha allah xam-xam-xam di ko jàngale di ko jàngale ci yar ci teggin ci nangam ci nangam bañee pànk su fekkee ne noonu mën a teggi shirki yi Sénégal yoon boobu noonu mën a teggi bidaa yi Sénégal yoon googu moomu tax nit ñi daal di gindeeku min baabil awlaa nag ay jikko yoo xam ne jikko ñaar te aqallu shay li ngay wax ni ñii aqallu shay li nga leen di li nga leen di tuumal mooy ñàkk jikkoy defee su fekkee ne mën nañoo jàngale rek ci noonu ci ni ngeen koy waxee mooy jàngale usuuri yem ca loolu jàngale ci xam-xam bañ a dugg ci li xam mooy radd mel ni xam-xam daa wuteeg li xam mooy radd muhim su fekkee ne noonu la kon la chaque ne kon yoon bii nga ñëw di radd nii tey mën ngaa jàngale usuul yooyu yem ci usuul nit ñi daal di koy xam waaye su fekkee ne lii la ngan moo féete suuf foo nga ñëw ci xutba bi daal di yëkkati sa kaddu jël kaddu yi tar wax loo xam ne ma anzala min sultaan ay su fekkee ne bii nag yële nag moom nañ jàngale usul rek peut-être yow ñooñu dañoo xam ne kon yow ni nga xamee ne sa lii nii ngay ngay défendre ngay ngay dénoncer mënoo koo dénoncer du da nga ci da nga ci joxoñ baaraam daal di wax ni ñii nii seen yoon bi baaxul mooy yoon bi yées su fekkee ne yoon boobu noonu euh, boog yoon noonu nga jàpp moo tax munoo yema ci usule rek jàppal ne tamit min baabi awlaa ñi la ñoom jàpp ne tamit kon caaxaan yi nekk fi caaxaan yi Matar Sarr nekk moom ak i sëriñam moom Sénégal yi nekk ci tarixe yi ñu nekk ak seen yoon bi mënuñu koo xeex lu dañ cee joxoñ baaraam daal di ci daal koy def seen i seen i seen i priorité soo demee ci kitaabu sharia bu Abu Bakar al Ajuri ak ci char usuli itiqaadi ahli sunna waljamaa wala la kaa yi في عندي بين اثر بوسيو بو خمنا نينكاي اسكن لي كيغا خمنا موي ابو بكر بن عياش شي اب سند بو موير يعني كيدي ابا بكر بن عياش دنكو مصالات نكو يا بكر من السني كان موي سنك بيه mu ne leen assunni alladi ida dukirat al ahwa lam yaghdab li shay'in minha mu ne mooy sunnit bi mooy ki nga xam ne suñu tuddee lenn ci bànneexu bakkan yi lenn ci bidaa yi du ca mer ci lenn mooy sunnit bi mooy kan sunnit bi mooy ki nga xam ne suñ tuddee bidaa nga xam ne lii bidaa la ñu tudd ay bakkan bakkani caaxaan nga xam ne lee caaxaan la nga bañ a mer ci lenn ci loolu la chaque ne ki nga xam ne dafa bëgg yàlla ko yenentaam xam sunna bëgg sunna su fekkee kañ kañ lay mer suñuy joggat yi alquran ak sunna waaye su nitee ñëw di ko raddal alquran kooku jóggi alquran sunna da cay kontaan su fekkoon ne sa yoon wa naqari ko yoon ba bu ko jaar su fekkee ne ci ak tarak nangam jàpp ne loolu baaxut waaye du tax mu ëpp mer ga muy mere kay radd loolu ëpp mer ga muy mere ka nga xam ne moom moo nekk moom moo wàcc yoon wa waaye day gis ne kii mer gi mu mere ñi nga xam ne ñooy radd bidaa yooyu moo féete kaw mer gi mu mere ñu nekk ci bidaa yooyu lu dut mu ànd ak bidaa yooyu ne bidaa yi lu baax la su waaw kon ñu xam ne su nu xamee li nga mooy sabab la shakk ne ajab dootul dootul am mooy saa bu nit ki xamee li waral mbir dootu étonnement mënutoo mënutu la am lu dut mu nekk ci bidaa yooyu moom ànd ak moom waaye mer gi muy mer ci suñuy tudd li nga xam ne mooy waa bidaa la xekk ne la muy tegtale mooy kooku noonu dafa ànd ak ahwa yooyu kon sunnit bi mooy ki nga xam ne suñu tuddee lenn ci al ahwa tudd lenn ci waa bidaa du mer ci du mer ci loolu bal su fekkee ne waaye ja ko def da am nu mu ko jaaree baaxut da koy da koy jël ca suuf sax da koy nasiha ne quoi yoon bi nga jaar mi baaxul macha allah liggéey baax na waaye a soo mënoon a wàccal taral bi ndax li ngay wax dëgg la waaye nii la ñuy jëlee dëgg waaye su fekkee ne dafay jël ña xam ne ay sunnit lañ dëgg lañ yéen caay gis ay ndaw wala ñeneen di raddee nuñu baax da jël ca suuf ne la ah ñun de kontaan nañ ca nangam nangam nangam waaye de soo mënoon a wàññi kàddu nangam ah soo mënoon a jëlee taraayu taraay bi soo ko mënoon a wàññi soo mënoon a waxee nii bañ waxee nele ba nit ñi duñ koo mën nangu xam ne kooku kii ab sunnit la kii merut ci ñu ngay radd waaye la mu mer peut-être wala nga xam ne moo koy naqari mooy nan koy defee te yenn saay mun naa yàq mu ñëw daal la koy def raatal waaye koo xam ne nag moom la mu bëgg mooy waa bidaa la mu bëgg mooy bidaa daal di féete kaw sunna dafay jël muraawaxaa di yoon bii lay jël nag yoonu ndaxaate mun nga ndax mun na ndax juhaali awaami ak ñi nga xam ne seen tànk dëgër ci sunna waaye doo ndax ñi nga xam ne xam nañ sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy yoonu bidaa mooy sol mbubu sunna sol mbubu ko xikma sol koo xam ne taroo sol mbubu koo xam ne danga xam mbir yi waaye nag di ko ñëw di raggal waa waa bidaa seeni seen li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy seen euh, seen seen ginnaaw ngir seen seen bidaa daal di daal di féete euh, féete kaw bokk na ci yoon li nga xam ne mooy yoonu waa bidaa ak li nga xam ne moom mooy euh, yoonu ñi topp seeni awa mooy jël waa sunna di leen sanni kàddu yu ñaaw ñu yées ci kuréel yi ñu yées ci kuréel yi ñu jël seeni vidéo tasaare macha allah fekk dara nekku ca loolu yomb la ñëpp mën nañ ko xam nañ ne mu ngeen ko nañ moom nga ni def mooy li ngay def nii waaye de liy différence bi mooy ñooñu la ñuy wax dañ koy teg ci alquran ak sunna yéen li ngeen dañ koy teg ci bànneexu bakkan wallahi doo leen ko teg dalil mukk dañuy toxal wala boog kii di xarb alkirmaani ba muy toxal li nga xam ne mooy yoonu boroom xam-xam yi ak yoonu waa sunna bokk na ci mbir yi nga xam ne wax na ko mooy xamle ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlul ahwa wal bidaa ñoom dañuy faral di jël kaddu yu ñaaw di ko teg ci li nga xam ne moom mooy waa sunna lii jubluwaay boobu mooy daal dawloo nit ñi dañoo ay abradiku amuñu teggin lu ñuy ko wax ci yoon duñ la musa wax na la baaraam wallahi alazim la ilaha illa hu ngay radd rud ay ruduud yu dul jeex indi aay yu dul jeex xaadis yu dul jeex indi waxi borom salaf yu dul jeex duñu ruus seen bëdd toj ñoo taxaw naan la yow ni nga waxee nii nangam kii dafa duñ la mën a taxaw ne la aaya bii ni nga ko firee du noonu duñ la wax ne ah, asar bii nii fi nga ko dugal dëggu fa duñ la wax xadis bii ni nga ko firee noonu da lay nekk fa ah, naan sa baaraam bi ngay joxoon nit ki jant bi sa baaraam bi daa dënkal dafa dafa dafa gudd duñu والله لا يستحر من الله فيكو نجي روس ما دينا روس نيت وقت بابارة وعي آية وعي حديث ينن تبي صلى الله عليه وسلم عمو لما تتك من يو تهانان كو سيير بدفا ويها دفا نيو لك سنة كادو جفرام من بنين كو غورها نين كو غورها نخلو دفا يشانت داري جدق والله العظيم نيت سنجي داري دق دار كي وخي وخدي وخمني وخدي نياولا كن دو أم بن دون تنم كو هي باغوت أمو بن بخي دو جدق قوم وخ دون تنم كو هي دو نونو na ma ko waxee moom mu nekkut yoon moom la day dellu ci moom waaye dëggam la wax ma da nga koo war a jël par force waaye dañuy bàyyi noonu taxaw naan la da ngaa reew ak da ngaa di war a waxee nii nit ki nii la war a waxee nit ki nii la war a waxee saa yi bu may noppee di dégg ñu naan ma da ngaa reediku maa ngi xam ne sama maa ngi bëgg a changer yoon saa yi bu ma tàmbalee mbokk yi tàmbalee ñu bari tàmbalee naan la macha allah maa ngi commencé tiit ci sama ci sama ci sama bopp ki nga xamne mom moy Ahmed job ci ay jamono Matar sa du ko tasaareel bamuy bamuy khutba li taw say bu khutba ba pare ñu ci génne ñu ray ko Matar sa du ko Matar sa du ko du ko taxawal du ko du ko tasaareel bo moy ci tel point bi ñëw ci forum bi ci neen ci ñëw kon ki nga xam ne mooy Harold da fay wax ni ñi nga xam ñoy ahlul hawa wal bid'a dañoo jël ay tur yoo xam ne shania qabiha yu ñaaw فسموا بها أهل السنة يريدون بذلك عيبا والتعن عليهم لج بك نيوم رك موي نياوال لين نياجال لين با نيت ني دونو دونو دونو ديم وجا دافاي ديبوك ليغا خام نيو سولو جيلي سي كيم ابو كيري الامام ابو حاتم الرازي وحدثيو من وعلامات اهل البدع الواقعه في اهل الاثر مكو نتي ليغا خام موي سيني واني وا بدع موي الواقعه في اهل الاثر suñ ko dafay gën a leer su fekkee dëgg goo dëkk boo xam ne daa dafa tasaare foo gauche droite foo tourné dëgg ci bidaa nit kooku mu amul benn yitteem bidaa kooku doo ko gis mu dénoncé koo ci dara doo ko ba ñooñu dañ koo jàppee sax yenn saa yi mbokk ci ñoom dañ koo jàppee ku yaru ku baax duñ ko xeex duñ ko def dara waaye su tourné lu gis lu mu ndaw ci wa al sunna mu xawali rek mu ñu daal di koy dénoncer wallahi al azim alaama boobu mo gëna reey rëy bi abu hatim di wax wa alaamatu ahli al bidal waqia fi ahli l athar ana su fekke ne bida dafa tasaro mu am lu bari lu wara dénoncer lu bare bare bare nga xamne soko don dénoncer Sénégal li ñi nek ci bida wallahi su dund matelu ko matelu don def say bu xëyee ni nit ngi di wax yëpp ci ay bida ci réer nga bëgg koo topp benn par benn wallahi sa dund ñaari dund du tax nga matale ko waaye ñoom amuñu yoon amuñu amuñu amuñu amuñu lu ñuy ŋàññ amu ñuy radd lu doot ahlu sunna yi nga xam ne ñooy radd li nga xam ne mooy bidaa la shakk ne loolu alaama gënu koo rëy ci li nga xam ne mooy alaama ne kii nii mu nekk nii ay ay bidaa la nangu na ko nangu ko ñu koy topp dangu nañ ko bañ na ko pour jeexal ci premier point ci forme bi mooy Ahmed Diop ku ko topp xam ko Ahmed Diop dama koy xam boobu xale la doon naa dajeeg moom yenn saa ci kër Xasan yenn saa doon nañu ko woo ci sunuy séminaire moo xam AMD la wala FIED doon naa déglu ay audiom mus naa taseeg moom it lu mel ni ay Malika ala kulli hal mbokk yu bari tamit doon nañu faral di dem li nga xam ne mooy ay xutbaam fàtte naa ci fan la xawmatuma Grand Yoff la xawmatuma ci fan la ci côté Dakar yooyu doon nañ ko wooyu tikin muy defi waxtaan maa ngi fàttaliku benn waxtaan boo xam ne ba mu ko defee ba pare ñenn ci mbokk yi jiite association dana doon du ko woo ndax ragal na maa ngi fàttaliku mbokki saa yi bu ñu jugaan xutbaam te daan faral di wax naan tey ni mu raddee gars yi ba yenn saa am ñu ne daan daan taxaw ci mbedd mi naan suuf tey su fi jaaree su fi jaaree am na benn xissa bu ma jàpp ci moom ba ñu nekkee ndaw ñuy wax ne xaw ma nag wér na wala wérut waaye lu mbokki doon nettale mu siiwu ci moom la jóge ne mos naa dugg ci taksee borom taxi daal di tek li nga xamne mom moy musique mu ne ko teggil musique bi borom taxi daal koy tegge tek ko xasida xasida seigne touba ne ko bi baax na mu ne ko bi mo pire la chaque ne bi mo pire ci tay ku xam sunna dëgg xasida mo pire musique ndax bi bidaa la ci anam moy bi ni nit ki la koy def jàpp ne mom moy lu bax la da cay jamo yàlla sunu borom te këli musique borom musique bi xamna ne musique bobu baaxut baaxut moom ba nga ko waxee tegg ko da ko teggi na xam lu bon la waaye bay lu bon la du ko xam moo tax mu ne ko moo wax moo pire li sama wax li yëpp mooy léegi lan moo fi changé ci diggante bi imma Ahmed Diop dafa dem ba daal di xam dan ne yoon boobu nekkoon yoonu réer la tar googu mu doon taral ci tasawuf di ko taral ci murit di ko taral ci tiigaane loolu ak ku réer la su boobaa dafa war ci moom mu taxaw wax sénégalais yi daal di tuub tuub goo xam ne ala nan lay doon ne man maa nekkoon ci mbir mi mbir mi réer la mbir mi baaxut mooy ne man maa jàppoon ne tasawufu réer la maa jàppoon ne sëñ Tuubaa alaaj Maalik nekkoon réer la maa jàppoon ne tijaaniya du dëgg lii nii maa ngi taxaw tey ñëpp ne denc naa ci ba set wecc ndax liñ ko xamee woon mooy loolu mooy taral googu bokk na ci ñu doon wax ñooy gën a taral ci duwaat yi mu indi ay adillaam leer ku ko ca topp topp ko ku ca topp daal di koy topp ñàkk topp waaye nag nekkut ci yoon bi la euh. ñuy doxalee nit lay doxale ak tuub su fekkee ne dafa tuub day ñëw leeral nit ñi illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu mooy da ngay tuub la nga yàqoon nga defar ko mooy yow xamal ne am na ay xale yoo xam ne dugalu nga seen bopp ne yoonu tariqa yeeg te yaan yëpp baaxoon nga ñëw daal di leeral leen ne eh, yëpp dara du ci amu ci daal di bayaan ñëpp daal di leer taxaw nag jàmbaarloog ñi nga xam ne ñoo lay weddi wan leen ne lii ngeen nekk nii moo nekk ak réer waaye dem ba ci yàgg nga ñëw di weddi la nga doon wax di weddi saw doxin te indiwoo cay lay taxawoo leeral nit ñi bal ba tey bëgg ñu lay boole fa nga xamee ne fa nga fa nga waxoon fa lay fa ngay nekk loolu mooy li Xudayfa doon wax li nga xam ne Abu Mas'ud mu wax na ko Abu Mas'ud ba mu ko waxee mu daal di koy am lu mu ko dénk fa ne ko xamal mbir mi mbir mi bi mu xam la mooy lan mu ne ko faalam anna dalaala xamal ne lii dëkk réer xaqa dalaala dëggi dëggi réer mooy lan an taarif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta taarif xamal ne li nga xam ne moom mooy réer dëgg bokk na ci li nga xamee nit mi ngi ci réer nga doon sa waxi démb bokkul sa waxi tey ni nga doon wax démb nga ñëw di ko weddi moy nit mën na nek ci mbir tuub su da fay leeral la mu tuub nga xamné ne da daa kon ci mbir bu dem ba gis adil day nekul bobu lañu waxé moy li Ahmed Diop def xey di wax di weddi lamu nekkon doni bayal melni mom ni nek ci lolu melni ni doonu sa doxalinam da koy deg men dafa judd rek nek ci li nek ci gisin wi moy kan moy ma ngay weddi lamu don lamu la wala mom don weddi lamu don lam doon lam doon wax mu ne ko wa iyaaka wa talawun fii wa iyaaka wa talawun fa inna diina allahi waaxid maa ngi lay moytandikoo ngay nekk koo xam ne dangay bari couleur di wëlbati ko rek di changer rek ndax diine yàlla ji benn la dina yàlla ji benn la mënta changer la nekkoon bidaa dem mooy nekk bidaa tey mënuñoo xëy la nekkoon bidaa di nekk yoonu dëgg xëy nekk sunna wala nekkoon sunna démb nekk bidaa nekk tar nekk yoon bu baaxul nekk ñuy yées ci kuréel yi bi duni dalil te alquran wàccaatu fi ginnaaw gi sunna wàccaatu fi ginnaaw gi kon lii wane yoon bi mu nekk yoonu réer la mooy doxalin ba mu daan doxalee dem na ko wax am na doxalin noonu doxalin na wax ne doxalin yooyu noonu man dama cee nekkoon dama ci génn ñu xool la mu génn ndax da koy génn ci adilla war cee génn te law woon di génn ndax leneen ndax toppi li nga xam ne mooy mooy bànneexu mooy bànneexu bàkkan su xekkee ne nit da nekkoon ci mbir mu nekkug réer nga dem ba gis na loolu lu réer lii sincérité ci nga gis na loolu réer la lii sincérité ko tuub daa di jëm ci yàlla sunu borom nekkul nga ñëw di ko takkal ñeneen ñi de déedéet. fi dégg muy wax. mel ni waa ahlu sunna dañuy bañ al madahib su fekkee yaa nekkoon ci loolu ahlu sunna mosuñoo nekk ci loolu bañ koo xam bañ koo peeg nekk ci ak ak jaahil bu mag ñu def oustaz ngay jàngale nga dem ma gis na loolu moom jëxlalu woon nga génn ca jàpp ne nag ñeneen ci lañ nekkoon fekk yaa nekkoon ci jëxlu googu li ko wax mi wax fi wax fii ab xutbaam wala jàngaleem ba muy def euh, xawma sisar ahadis wa daif xawma saxe loon jàngale di jëm loo nit ki mel ni ahlu sunna dañuy tere nit ñi tamadhub nga xam ne loolu kon natiija lan jahl gu mu nekkoon moom laalla moom mu nekk ci ahlu sunna loolu la jàppoon mais bil jahl waaye ahlu sunna mosuñoo jàpp loolu mu ñëw di radd loolu ahlu sunna mosuñoo tere kenn tamadhub su fekkee ne tamit yoon wii na ngaa nekkoon yoon woo xam ne yow yoonu pànk nga doon moo tax nga doon wax yoonu mer moo tax nga doon wax loolu bu ko xiyaas ñeneen ñi su fekkee ne la tax nga doon dal ci sëriñ si nekkuloon nekkuloon ixlaas tegoo woon ko ci xam danga nga koo tegoon ci pànk rek tegoon ko ci ngir ngir yàlla tax da ko tegoon ngir ngir nit ñi xam la su fekkee ne dem nga ba xam ne loolu yoonu bon la la chèque loolu yoonu bon la tuub ci nga dellu ci ginnaaw bu ñëw di jël di ñaaw ñott ci ñeneen jàpp nañ ku def loolu rek yow la taxoon nga koy def moo tax mu koy def intabe nga yàlla sunu borom su fekkee ne da ngaa nekkoon ci yoon wu bon nga dem ba ci gis na sa yoon woowu bon la tuumaalaal sa bopp mais wal jàpp ne du man kese de nekkul sax waaye ñëw di wax mel ni yow la nga nekkoon musoo caa nekk mel ni mbir mi moom musoo caa dugg moom mais ñeneen ñoom ñoo am problème lii du amaana lii du insaaf lii du adl lii du ragal yàlla lii du xam-xam lii tooñ la lii mooy premier point bi nga xam bëggoon ko leeral ci ci li nga xam ne mooy mooy forme bi ñu jëw ci li nga xam ne mooy fond fond wax ji su ñëwee ci li nga xam ne moom mooy forme bi li nga xam ne moom la njëkkee wala boog di njëkk ci vidéo bi mooy waxam ji mu wax ne ñu yées ci kuréel kuréel goo gis ña ca yées mooy ña nga xam ne saa li yëpp seeni i kàddu mooy jëmale ci nga xam ne ñoo wuteeg ñoom la fekk ne wax ji rek doy na wane ak jël wane doy na wane ci wàcc yoonu alquran ak alquran ak sunna doy na ci wone ne kii li muy wax nii jëlee ko loolu ci bànneexu bakkanam moo du la mën a tudd la bu aaya du la mën a tuddal ab xadiis du la mën a tudd tuddal waxi borom xam-xam yi nañu dellu ci ñoom ndax borom xam-xam yi lii nekkul seen yoon mooy borom xam yi jëluñu lislaam di ko tàqalee ci ay kuréel ba kuréel gu nekk am ñu ca gënd ak ñu ca yées ñi nga xam ñooy borom xam lislaam yi la lislaam xam la ñu xam mooy lislaam benn kuréel la mooy kuréelu ahlu sunnati wal jamaa beneen kuréel gu muntu doon bu dul ahlu sunna dama kuréel gu yiis la bañ fay am ak ñu yiis ak ñu ca gën bépp kuréel gu wuteeg kuréelu at taif al mansura kuréel gu yiis la ñu fa nekk di tàqale ña fa gën ak ña fa yées bépp kuréel gu wuuteeg li nga xam ne mooy kuréel gi nga xam ne mooy kuréel ga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mooy ban kuréel mooy ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di xabaaree jullit ñi ñu xamal leneen dinañ tàqalikoo tàqalikoo yu bari ba egg ci juróom fukki kuréel ak ñett yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne benn kuréel mooy nga ci mucc yeneen kuréel yëpp yées kuréel gu mucc mooy ban kuréel man kaana ala mithli ma ana alayhi yowma ashaabi kuréel gi nga xam ne ñoo nekk ca la yonent bi salla sa nekko moom ak i saxaabaam kuréel ga nga xam ne ñoom xamuñu woon jël werd nekk ci ab tariqa kuréel ga nga xam ne xamuñu woon kenn kuy taxaw ci san kanam naan leen sama werd bii nii wala sama salaatul fatiha gii nii moo gën nga jàng alquran ay nangami yoon ñu taxaw kon ne ne ko ab jullit nga nit ku baax nga xamuñu mooy kuréel gi nga xam ne mooy jamonoy saxaaba yi ñu kuréel googu xamuñu woon ay nit yi taxaw naan kii xutb la kii mooy xaws bi kii mooy xettali ko kii xamuñu woon ñuy taxaw di défendre di wax di dëggal wala di jël ay nit ñuy woote wahdatul wujud wala al xulul wala di woote woo al ittihaad ne ñii nekk ay nit ñu baax wala nit ñu la xamuñu woon ku ñëw fentub yoon bu bees ci yoon ci yoonu Euh, ci lislaam daal di koy askanale boppam moom askanale ko lu mu mënti doon ñu taxaw daal di taxaw ne kii kuréelam gii nii am na lu ca baax ak am na ñu ca ñu ca yées yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn kuréel la ñuy wax ñu topp ko benn kuréel la ñu loo kuréel gi mooy ban kuréel mooy kuréel gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo nekk ca ñoom moom la mu nekkoon moom ki saxaabam wa in amanu bi mitli ma amantum bihi faqad ihtadaw moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fa innahu man yaish minkum fa sayara ixtilafan kathira ku dund ci yéen dina gis wuute yu bare bare bare bare bañ ko laajee wala boog yonente bi sallam mën nañ koo laaj saxaaba yi mën nañ koo laaj seen lisaanul xaal ñan ñooy lu ñu war a def mu ne su boobaa ne fa alaykum fa aleykum bi sunnati topp leen sama sunna ak sunna ñan sunna sunnati xulafa rachid mahdiyin sunna ñi nga xam ne ñoom wuti sama ginnaaw mooy sahabatu kiram ñu ci jiitu abou bakar omar ousmane ak ali ibn abi talib lii mooy kuréel gi ñu xam kuréel googu ñooy kuréel gi gën ci kuréel yi waye li gëna tay yéme moy Ahmed Diop dafa jël li nga xamné moy tax nit ñi gën kureeli gën mooy melokaanu kuréel yi gën ci kureeli ndax bala ñoo ñoo ci kuréel islam gog li tax yàlla subhanahu wa taala tan islam mu doon kuréel gi gën ci kureeli moy yëkëti gi ñi yëkëti seen kàddu daal di koy joxoñ ña nga xamné ñoo wuté ak ñoom kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar dafay jël Ahmed Diop dafay jël mbir yu rafet mu daal di koy jël ci sura bu ñaaw comme ni ko arab di waxé li nga xam ne moom mooy lem soo koy tagg mën nga koo tuddee li nga xam ne moom mooy euh, salivu salivu euh, nga ne lii salivu lii rek salivu abey la waaye su fekkee da ngaa ñëw di ko ñaawal di ko xas danga koy tuddee wàccu wàccu li nga xam ne moom mooy moom mooy yàmb dafa jël loo xam ne mooy base wallahi alazim la hu yàlla du tagg mbir ba pare mbir ma su baree mu daal di koy ŋàññ ballu yàlla tagg ku ko baril laa ngaa def lu na ngaa yokk ak li nga xamne moy mooy yiw li nga xamne moy courel gi nek ci deug lay gëna nek sen sima yi gëna rafet li yàlla di gëna tag ci ñoom moy li ñuy gëna taxaw di joxoñ baram ñu wuteeg ñoom kuntum khayru umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna munkar kon courel gi nga xamne ne ñoo nekk ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkon nekkoon ñoo nekk ci li nga xamne ci la sahaba yi nekkon moy courel gi nga xamne ñoom ñi ci gën ci ñoom ña ciy féete kaw ñi gëna wek di leen gëna bëgg mooy ña nga xam ne ñooy taxaw lépp lu wuteeg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ñu taxaw yëkkati seeni kaddu wone ne lii nii baaxul kon naka la mën a taxawee Ahmed Diop ne kuréel ñi yées ci kuréel yi nga xam ne kon kuréel googu kuréelu ahlu sunna da caa dugg ñu yées ci ñoom mooy ña taxaw di joxoñ baaraam ñu wuteeg ñoom mooy ñu wuteeg ñoom ñooy ñan mooy ñu wuteeg alquran ak sunna ndax lii ku am xel di nga ko wax ndax lii ku ànd ak sa sago ba tey di nga ko wax ndax lii koo xam ne ngay askanal sa bopp ci xam-xam war ngaa taxaw ci minbar boo xam ne minbar la kay représenté ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax wax ju mel nii waaye li gën a tey yéeme mooy vidéo yu mel nii جاهل بو ملني اما تارثار ديكو تاساري لا شك ني دو يم آه، اجهل من حمار اهله لو باخ ولا بون مونو كو خامي لو بون موي لي باخ تي موم لي باخ موي لي بون تي موم واي لي يينو داي اي سنيت فيديو يي ملني ني ديغلوكو diko tassare ki dafa taxaw di ngagn yoon bi yàlla subhanahu wa taala gërëm dafa taxaw di ngagn yoon bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de di gërëm te li mo tax nit wara mer nit yëkëté kaddom li mo tax mo wara yëkëté kaddom ba ay tapalé fekk nañ ay tasawuf fekk nañ ay soufi wax na dañu dañoo nekk ci rir ngay mer di yëkkati ha yëkkati sa kàddu te amul ay muraawaxaat amul ay mbir yo xamné ay li ñuy wax ne su fekkee ne du da ngay daaw ne lii nii du lii lii moo tax alquran sunna moo wax nangam mais pas mu raaw agaa dem di faral di ko def ñun nangam ñun faruñoo tontu ñun faruñoo def nii ñun duñu nangam ñun duñu nangam loolu jitteelu nit ñi li nga wax nii dafa da koo war a tuub lii da ko war a tuub képp koo xam ne ànd ci fa taxaw tuub ñëpp déggu ne tuub nga ko naka nga mën a taxawee te ŋàññe ne ñi kuréel yi gën a yées ci kuréel yi nga mooy ñi nga xam ne dañuy taxaw di ŋàññe di yëkkat seen kàddu di ko bareet di jëm ci ñu wuteeg ñoom aka lañu mëna ngagne comme dañu ko ti kaddom jëm ci ñi nga xam ne wute xon sunna imaginool su fekkone sax amuñu ay yi fekkoon xam hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam bil aql bil aql kese su ahlu sunna am na koo xam ne ci yoon ci sunna ay kuréel yu bari xew kuréel yëpp di wuti alquran ak sunna saa bu ñuy waxee di wax ci alquran ak sunna saa bu ñuy waxee di ŋàññ alquran ak sunna saa bu ñuy waxee di joggati alquran ak sunna naka la xel mun a nangoo nga ne ñu yéeg ci kuréel googu nekk ci baax mooy kuréel gi nga xam ne ñooñu bari gi ñu bari moo tax fu mu toll di wax ci ñooñu di leeral seen i seen i bonte ban xel moo ko mën a nangu ban xel ban sharia ban xam-xam moo mën a nangu li ndax lii mooy xam-xam ndax lii mooy xam bi nga xam ne moom ngeen di bëgg a jaay nit ñi ndax lii mooy sagesse ñor gi ngeen ñor ndax lii lii lii lii lii naka la mën a nekkee naka la ko nit li même franc-maçon yi sax moo pire waxu franc-maçon yi ñi pire ñi yées ci kuréel yi mooy kuréel yi nga xam ne dañuy weddi li wuteeg alquran ak sunna kayif yàlla subhanahu taala ngañ kuréel ngañ ab yoon ci lan ngir bañ bañ gan bañ di lan di digle lu baax di tërelu du tërelu bon naka la kuréel googu mën a jógee naka la kuréel ñi gën a yées ci kuréel su fekkee ne kuréel googu ñu nekk ci sunna la naka la ci gën a yées ñi ci gën a yées di doon ñi nga xam ñooy taxaw di di di jàmbaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy waa bida di di di di di waneek wala boog di wane ña wuteeg wuteeg ñoom imaam mu jàpp ne kuréel yi muy wax yëpp kuréel sami ci baatil lañ nekk ñaari yi moo xam imaam ne kuréel yi wax yëpp ci baatil lañ nekk kuréel yooyu su fekkee dañoo nekk ci baatil ña ñuy wuteel kon ci baatil lañ nekk kon fekkee ne ñoom sax lañuy ñuy wuteel ci baatil lañ nekk ñoom ñu jug di wax ñoom dinañ tontu ci baatil loolu mënut a doon masla ba ci ñoom loolu loolu mënut a doon loolu manqaba loolu mënut doon lu dul yiw su fekkee ne kon kuréel yi nga xam ne ñoo am ci lislaam ñoom ñëpp dañoo bokk nekk ci réer su fekkoon ne noonu la mbir yi demee kuréel yooyu ku ca jug di wuteeg ña nga xam ne di di di rad dañ ña wuteeg yow mooy ne kon la ngay rad moom baatil la نهي مج باطل لنك كلو اشك نمود انك لا ينتي بيصلى ثمون لا تزال تعرف في لومة الحق ظاهرين ينسى لمون يوهني فرقة يبدي نني سانكو مدس بين فرقة ما الفرقة الناجية يا الله سبحانه وتعالى خمل نيت يا القرآن نمون يو دجي جلت مون يو نيك جيرين وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين هو يتبع غير سبيل مون مون يو جوك بون نيك تي ليغا خامني موم موي موم موي كوغرير كون سو فيكون نيو جيل سخ افتراض ne moo kuréel yi muy wax ne yëpp ci baatal lañ nekk ñoom yëpp da nekk ci réer kuréel yooyu noonu ko ca nekk su fekkee ne la nga nekk ak réer la su fekkee ne ña ca nekk ña ñu wute yow dañoo ak ci réer lañ nekk kon suñu wutee yow lañ wutee réer la soo raddee tamit kon la ngay radd moom mu ta doon li nga mooy nga yées ci kuréel imma mu ne kuréel yëpp dañoo nekk ci li xam ne mooy lu baax su fekkee ne kuréel yëpp dañoo nekk ci lu baax képp koo xam ne wute nga kuréel yooyu la nga nekk lu bon la su boobaa tanaaqud dafay am su fekkee kuréel lu nekk ci baax kenn du wuteeg ñoom su fekkee ñeneen dañoo ñoom ci kuréel yi ki nekk ci baax kenn ki nekk ci bon su fekkee nangu nga kenn ki nekk ci lu baax kenn nekk ci bon mooy kon kuréel nekk ci baax am nañu nekk nga xam ne moo nekk ci lu baax tontu gu nekk ci lu bon naka la mën a nekkee lu lislaam ni ngaañ te la chakk ne xel sax mooy nangu ne kon kuréel yëpp mënuñoo nekk ci lu baax kon li mën a am mooy des mooy ñaari mbir mooy nangu ne kuréel ku nekk da nga am lu nekk ci lu baax ku nekk da nga am lu nekk ci lo loo nekk ci lu bon mooy kuréel yëpp am na lu baax am na lu bon fekkee na loolu la ñu jël wute nag li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kulluha fi nnaar kuréelu yëpp seen yoon fa mu jëble nit ñi mooy safara loolu que di bañ bañ xeex leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun li ñuy wax mooy li yonente bi la ñuy wax yonente bi moo wax ne kuréelu fi nnaar su fekkee ne jaxlukum moo leen yóbbee ne ñoo jàpp ne afraad yi euh, euh, safaluñ jëm ngeen laajte ñu tontu leen ñu leeral leen jàngal leen xam-xam li mooy mbir mi su fekkee ne nit ki da ngaa ne da ngay wax te kallam bi jeexal su fekkee ne da ngaa ñaari mbir ngay ŋàññe suñuy wax ne ñi nga xam ne ñoo wuteeg ahlu sunna jamaa safara lañ jëm loolu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la imma nga weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku fi nnaar yonente moo ko wax nekkul ñoo ko du suñuy wax ñoom ñëpp safar lañ jëm imma nga jàpp nga dégg ko déggin bon dañoo wax afraad yëpp su fekkee ne afraad yëpp nga dégg ñu xam ne yow sa déggin moom nekk déggin bu bon yaa amul xam-xam yu leeral na liñ jublu ci loolu mooy yoon bi njaar yoon bu bon la yoon la muy jëmee safara loolu ni ngi nekk ci waxidu yàlla sunu borom loolu la ahlu sunna di wax leeral ko tasaare ko imma na nga nekk koo xam ne yaa ko tey xam nga ko pare ñëw daa di ñëw daa di di lëm di lëmbi xelu nit ñi moo day arab di wax naan wañ kunta la tajri fa tilka musiba wañ kunta tajri fal musibatu azam kon su fekkee ne kuréel yii ñu afam lu baax am lu bon su boobaa ba tey sa wax ji baatil la ndax su fekkee ne am lu baax lu bon ci kuréel yooyu kuréel yooyu ña ca nekk su fekkee am ñeneen ñu wuuteeg ñoom ci lu baax loolu ñu nekk naka lay nee ne ñu yis ca ñoom mooy ñuy taxaw di yu di di weddi di xuloo di di dénoncé ña nga xam ne ñoom ñoo wuuteeg ñoom naka lay ñis ñoom nakay doone noonu su fekkee ne ñoom la ñu nekk lu baax lu la ci ñoom fa ñu nekk kon am ñu wuteeg ñoom ñu wuteeg ñoom ñoom ca lu baax ñoom ñëw di leeral ñooñ ne ñii li ñu ñoom baatil la naka lay doone ñuy yées ci kuréel yi su fekkee ne nag mooy lii nga xam ne mooy li wér mooy ne benn kuréel mooy kuréel gi nekk ci lu baax kuréel yi ci nekk ci lu bon kuréel googu nekk lu baax li naka lañuy ñuy ñoom la ñuy wuteel mooy alquran ak na naka la ñoom seen yoon boobu ñu jaar di dénoncer la wute alquran su nekkee yoonu bon ay ci naka ci ban anam lañ mën a doon ñuy yées ci kuréel yi ci ban anam lañ mënee doonee ñi nga xam ne ñoom ñoo yées ci kuréel yi laa shakk ne wax ji baatil la wax ji dafa ñëw di di mabbal di mabbal fondement bu rëy ci fondement wu lislaam ci fondement wu ahlu sunnati wal jamaa mooy al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man raa minkum munkaran fa yugayiru bi yadi képp gis munkar xam ne nakira la munkar bu mënti doon fa yugayir bi bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani su fekkee ni mënu ko mu mu daal di koy def ci làmmeñam naka la ko doon ñu ci kuréel yi naka lañu mën a doonee ña nga xam ne kon ñoom ñooy inkaar munkar bi lisaanihim kayf nga xam ne waxam jii nii wallahi soo ko toppee ñi gën a yées ci kuréel ñi yées ñi yées ci xeet wi ñi yées ci umma bi mooy borom xam-xam yi ndax borom xam ñaata téere la ñu bind الرد على الجهمية الرد على المعتزلة الرد على الكرامية الرد الرد الرد الرد ñaata téere la borom ahlu sunna yi bind mu tees dell ki radd ahlul bidaa al murjia noonu la xamee arradd ala al xawaarij saxaaba yi ñaata yoon lañ yëkkati ay wax di ko radd al xawaarij xatta yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata wax la jël di radd waa bidaa te ñëwaguñu di radd xawaarij yi naka la mu yoon boobu yenn saa mënuñu ko daañu ibbil yoon bi fayal fu mu toog naan iyaakum mahdasatul umur kullu mahdasatin bidaa di ko répété ci min bari lu dul jeex ba ba muy mujjee faatu li mu jox mooy taxdir ci bidaa googu noonu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ñëw jaar ca bidaa gu ñëw ñu radd bidaa gu ñëw ñu radd ba kenn ñoom da doon wax naan amul seytaane ku mu gën a gis Abdul Omar mu daal ci suma jum moom la mooy ki ma ki mu gën a gis bëgg mu alko ci àdduna bi tey xaw ma ku ku su man ndax bi da daf may jugee saam fële fële fële ñëw ci man ma daal di koy te radd ba mu daal di koy def doom naka la ñooñu nekkee ñi yées ci naka lañu mën a doonee ni nga xam ne ñoo yées ci kuréel yi. nga dellu si tamit ci salaf ñu lay tudd ay borom xam yoo xam ne seen li bokk nañ ñi gën a siiw li tax ñu siiw mooy ak jax mooy di tudd ñi nga xam ne ñoo wuteeg ñoom. ci waa bidaa ci ci ñi wute xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la danga tudd seeni tur di leen leeral bind ay téere téere yi binduñu ko dul leeral ñu lan ñooy morjia lañuy ñooy xawaarij ñan ñooy chia ar rafida nga ne yiis ci kuréel yi mooy ñi nga xam ne ñooy ñoom ñooy tontu loolu ñoom ñooy leeral loolu ñi yées ci sunni yi mooy ñi radd al rafida fu ñu toll nan rafida nangam nangam ñi yées ci sunni yi mooy ñi radd al murjiya ñi yées ci sunni yi mooy ñi radd al xawaarij wafin lakum wallah naka la ñuy mën a taxawee nit ci lii ci ci kanamu ñëpp ñu taxaw ñu toog ñu jàkkaarloog ñu jàkkaarloog àdduna bi jàkkaarloog nit ñi nekk ci kaw minbar di wax wax ju rëy nii te day noonu lu normal dafay jàll kii wax lii kenn du ko wax dara waaye man mii di wax lii su ma jugee tappalekat yëpp mën nañu ñëw daal di dal waroo waxee ni kii borom xam-xam la kii dafa nangam topp si nekk waroo waxee dafa tar wax tàngam dañuy fekk ñuy joggati sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw minbar yi ay nit ñoom dañuy taxaw naan la sunnit la salafi la mel ni carte membre bi soo ñëwee la nekkul yéen moom salafi ko neex ngeen génne. yéen eh, moom salafi ko nekk dëggal nangam nangam wax yoo xam ne tappale gënu koo rëy kon moom moom salafiya salafiya yàlla subhanahu wa taala moo ko wàccee ci kaw suuf mooy lislaam ngeen gis ay nit di ko joggate di ci dox lu leen neex ñu wax ko leen neex ñu def ko ci soo ñuy taxaw di sonal nit ñi salafiya kenn moom ku may dugg moom génn nangam nangam ba kañ ba kañ ba kañ kon bi mooy point bi ci xam ne baatil li mu wax baatil la foo ko natt ci baatul ci réer ci neen rek weesu na ko weesu na ko boo tax Matar Sarr yagar yagar yi tasaare ko naan diglu leen xutba bi ndax xutba bi bis bu demee bu duggee ci xolu nit ñi wallahi tariqa tijaanee mun na leen la la tapi ba rouge wax na dëgg lii su génnee na ñi nga xam ne ñoo yées ci kuréel moo ñuy a at tijaaniya ñu réesi wallahi almustaan ci saaga li saaga borom xam-xamul islaam yi la ba maa ci Malik ba imam Ahmed ba ba ci ñi mujj Cheikh Islam Ibnu Taymiya ba ci Cheikh Cheikh Ibnu Taymiya Ibn ñaata yoon lañ radd ci ay ay ay yoon yu dul jeex ay ay ay ay saa bu ñu yëkkatee seen kaddu nga gis ñu mer bind yónnee mooy radd bidaa raddu réer raddu kuréel yi nga xam dañoo génn ci yoon mu ne ñuy yees ci kuréel yi mooy ñi nga xam ne ñooy radd wala ñooy yëkkati seen kaddu jëm ak ñun wuteel wax ji foo ko jëlee delloo ko fa tu ragal yàlla nga tuub dellu ci yàlla sunu borom balaa dee di la delloo di dikkal. ñaareel mbir bi nekk ci fond wax ji mooy jël gi mu jël li nga xam ne mooy tar jëmale ko ci biddaa solal ko mbubb mu ñaaw tuddee ko pànk tuddee ko xawma nu mu ko mën di tuddee. di gëm gëmloo nit ñi ne loolu nekkut yoonu alquran nekkut yoonu sunna mu sosal mu duural yàlla akub yeneen taam ndax gëmloo nit ñi ne yàlla subhanahu lim digle mooy li nga xam ne mooy nooy rek la jugale jëmale ci yéefar yi wala fekkee sa yéefar sa da nga waroon nooy mu ne naka ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi wala wax ju mel noonu loolu réere alquran ak réere sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la réere yoonu salafu saalix la lii di tar jëmale ci yéefar yi lii di tar jëmale ci waa bidaa tudde ko nu la neex tudde ko pànk tudde ko nu la neex tuddé ko rewandé tuddé ko nura neex li di tarax jëmale ko ci ñoom loolu lu yàlla subhanahu wa taala tagg la loolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg na ndax yàlla subhanahu wa taala moo ko ko moo ko ko digal ci ñaata yàlla ba muy tagg sax li nga xam ne mooy saxaaba yi muhammadu rasulullah walladina maa ashiddaa ala alkuffar gis nga dafa nekk ñoo xam ne dañoo tar jëmal ci yéefar yi mu ne ruxamaa u baynahum gis nga waxul sax ne dañoo nooy de dañoo yër dañoo am yërmaane seen biir nga xam ne yërmaane googu yenn saa yi la nga xam ne moom mooy muqtada bi mooy nga daal di taral déglun ba alquran yàlla sontaan dafa ñëw li njëkk daaral waaw li njëkk a wax xam sànni ko fële mooy ne li ñu digal li nga mooy tar jëmale ci yéefar yi nekkut loo xam dañ koy ŋàññi yàlla subhanahu taala li muy digal ci aslu ci yéefar yi mooy tar yenn saa yi nag nga daal di jël li nga xam ne mooy yoon mooy li nga xam ne mooy layin selon li nga xam ne mooy circonstance bi waaye li nga xam ne mooy asl ci li nga xam ne moom mooy yéefar yi mooy tar muhammad rasulullah walladina maa ashidda ashiddaau ala alkufar mais seen biir nag ñoom waxut de dañuy nooy de ndaxte nekkut nooy bi fu mu toll lañ ko def jullit ci diggante ruhamaa u baynahum yenn saa yi rahma googu noonu lan may laaj mooy nga daal di tar wallahi képp ku am rahma ci umma yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi di nga tar su loolu nooyu nooyu nooyu so soo jàmbaar soo gisee li am sénégal ci bida soo gisee li cheikh tidiane yàq sénégal nit sëriñ si yàq sénégal soo gisee tariqa tidiane ya tariqa mouridia ni ñu tasaaree sunna yonente bi sal wallahi su amee onze rahma onze rahma soo ko amee jëmale ci umma yonente bi sala sallam wallahi soo taru di nga tar tarlu soo taru di nga jéem a fexe ba tar jëmale ci ñee kenn ku tarut ci kooku kooku ñoom lañ moom la ñu war a ŋàññ nga xam ne ki am rahma dëgg dëgg dëgg dëgg ci umma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki tar ci wa tar ci waa bi na ku ci koo xam ne di nga dégg alquran di ko settantal bu baax a baax a baax ashidda wala alkufaar ruhamaau baynahum waaye yàlla subhanahu wa taala yëmut sax ci loolu dafa jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko digal di ko digal ne ko mu daa di nekk koo xam ne dafay tal tal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy ñëw sax daal di nekk ci biir islam te ci sawuf ñu bëree bëri ci ñoom am na ñu bëri ci ñoom ay zanadiqa wax ma ñëpp loolu beneen tar la na dañuy yéefarloo tasawoo dañuy nangam ñaa yéef loolu ku ko wax ahlu sunna nar ci ñoom ahlu su wal jamaa buñ leen reproché lu ne ba mu dees nëbb lañu gëm su ñu gëmoon ne tariqa yi nekk Sénégal ay yéefar la ñu koy wax kenn gëmu ci ahlu sunna wal jamaa tariqa yi nekk Sénégal ay yéefar lu dul benn tariqa boo xam ne képp ku waxut ne yéefar lañ ñuy laaj ndax yow jullit nga muy tariqa bi nga xam ne ñoo wax ne am nañu yenant ginnaaw yenant bi sallallahu alayhi wa sallam mu laayeen yi bu dul boobu sa ahlu sunna taxawuñu joxoon ci benn tariqa ne yi ay yéefar lañ kon di taxaw na ahlu sunna yéefar la loolu ay shan-shanatu naifa min min axdam ay nar la yoo xam ne bañ fañ ko xam fa muy jógee xam nañ ko waaye taral jëmale ci ñoom tekkiwut na yéefar loolu waaye dañoo war tarat ñoom ba nit ñi xam ne li ñu nekk nekkul la yéen su fekkoon ne war a noyal ci ñoom waaye ñu gis ku mel ne Ahmed Diop ñëw di defar seen yoon boobaa day war suñu taral ci ñoom fekkoon ne noyal moo waroon ci ñoom waaye ñu dem ba gis ku mel ne Ahmed Diop ñëw nag naan leen léegi dafay raayal seen mbir mel ñoom yoon bañ am na ñu baax na ñu bon ca ñoom tasoo bu googu wax joo xam ne waxu réer gënu koo féeti kaw su fekkoon ne noonu la demee sax kon dañoo war a taral ci taral ci ñoom يا الله سبحانه وتعالى لأنه هي النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تفهم لي يالله هو ومن رحمة الله اللي انت لهم يالله ينسلف عليك كل نوعي وين انت بوب لي الله سبحانه وتعالى نملا وحنا يفر ان نفك يو وليجدوا فيكم غلظه لا نفك نغير تار لا نفك نغير نيك ньо خامني نيو ñu pànk lañ nga xam ne koo kom xel xam ne lii di allayl ak lii di ashidda nekkut lu ñuy ŋàññ nekkut lu ñuy gërëm lu dul nit ki fam ko def nag nga mën a ñuy ŋàññ ne jël yoonu tar yoonu euh, dëgëral jëm ci ñooñu kon ñooñu nga xam ne ñooy jël ñooñu di tasaare parce dañoo tar ci waa bidaa ñoo ñoo dégg li nga mooy sunna ñoo ñoo yey ñoo ñoo yey daal di tasaare Shawkaani def al-ghilla shiddatul qalb وخشونة الجانب لأن نيغا خامني موم موي آه، غيل زوكا موي خول بو خامني دا فاي تر تاي دوي دغير موي بانك بي نيو بانك نيغا خامني كي دا فا بانك داي ميرشي لول موي ليغا خامني موي شيد دغ نيو يالله سبحانه وتعالى ديغال يالله سبحانه وتعالى هو ينتمي صلى الله عليه وسلم لكو جاهد الكفار والمنافقين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين خيخل الكفار الكفار نمي قيانيوم دي جل دي سي خيخي كفار نمي جهال نيوم موي لهم موي سيف والمنافقين واغلظ عليهم منافقين نقل خيانيوم موي اي ادلة موي رد لين موي ليرال سيني يون ليرال سيني خمني موي سيني سيني شبهات comme ni nga xamee ne ahlul bidaa noonu lañuy duggee ci subahaat yi ñuy indi ci ci sunna wa ghuluw alayhim bil kalaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam munaafiqu di bi jihaada ñoom mooy bil kalaam mooy taral jëmale ñoom taral googu noonu lu koy waral mooy yërmande gi yàlla yërëm jullit ñi def yërmande googu seeni xol ba lu leen di indi lor dañuy taxaw daal di gu ñooñ loolu ceg tar te amul lor gu gën a mag lor bu ñu mën a andi jullit naw shirk bokkal yàlla suñu borom luy bidaa te rawat na fekkee ne biddaa yooyu nag bidaa yoo xam ne ci shirk la la doon dëkk boo xam ne nit ñi dañuy jaamu ay ay bàmmel di tawaaf ci ay bàmmel di dem ci tukk ci ay bàmmel di ñaan seytaane ndax nit moom mu jàpp ne moo am na xel am na xam-xam boo xam ne jàpp ne ñooñu dañoo war a nooyal jëmale ci ñoom wala yëmul sax ni noonu noonu jëme ñoom waaye ñee tar jëme ci ñoom dañoo wàcc ab yoon ba mu war a taxaw ci min baram ne daf koy daf koy daf koy daf koy dénoncé yoonu alquran yoonu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tar ci bépp maasiya lañu jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata yoon lañ ko xewa lañ réewaa jëmale ci moom ci ak tar ci mbir yo xamne mo moo suuti fuut féeti suuf li nga xamne mom moy mom moy bida yent bi gisoo sahabi takku jaaro mu jël jaaro bi xëcc sànni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggul ay nit di mébét ay ay mbir rek mu taxaw ci man baram bëj xonku muy mer nan ma bal qawm hatta yaquluna kadha wa kadha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay saxaabaam kii de Kaab ibnu Malik ak ki xam ne mooy Muraara ibnu Rabic ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibnu Umayya ba ñu daal di wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gazwa yonent bi wuuteeg ñoom cum tar ñu ñëw di ko nuyu di leen fay digal nit ñi ñu bañ leen a jaxasoog ñoom bañ leen a fay ci seen nuyu ana am ana xelu am Diop ana xam-xam bi ñu woote woon naka la ta yent bi sax lam tamu tar ci ñoon ci bàkkaar gu ñu def lu tax loolu wax loolu du tar bañ a ñu nuyu la doo fay ba yàlla nettali ne suuf si daa ci ñoom li mu doon yaatu ba ñenn ci dematuñ di julli ji ci jàkka yi ndax tar gu mbir mi tar loolu Kaab ibn Maalik ci mujj gi fi dematut kiilu benn maasiya benn mbir bu ñu wuteeg yonente bi sallallahu alayhi wa ñu gis ay nit ci Sénégal di wuteeg njàlla sunu borom ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay fondement yoo xam ne ku ko wàcc sa wàcc ci lislaam dénoncé loolu meroo ci ñooñ di mer nga xam ne ñoo tara ci jëme ci ñooñu ba pare jël bëgg a jël alquran sunna wecci ko war a après dañoo war a toog noppi am na ñu naan la bul wax bàyyil ba ci kanam dañuy fexe ba léegi ñi nga xam ne ñoo nekk ci caaxaan seen i tappale parce que bari nañ parce que bari nañuy wax parce que ñi nekk di wax di wax ñooñu lañuy dem ba léegi nag dañ leen di sewraale soo waxee fitna am ci sa daawa bi wallahi na fitna am ci daawa bi su fekkee ne lii mooy indi fitna ci daawa bi kuy nekk di jàppale ay xuburi yoon di dëgëral bidaa su fekkee ne loolu mooy indi dara da ko mooy indi fitna daawa bi daawa bi fu mu toll daa war a am fitna warta toog bukk ci jàmm ndax lañu jàppee mooy jàmm sa ñoom mooy seen fitna loolu baatil la kayif jël lii boo ko def masla ba dañoo taral donte am na yoon ay yoon exagération la am na ñuy yoon dañoo taral ñoo gënoon ñoo leen gën a du foofu ñoo leen gën a ñoo leen gën a xam fuuf fu ñuy tarale ak fu ñuy fu ñuy seddale ak fu ñuy serale ndax kii xamut fu muy se fi muy taralee moom dafa taral jëmale ci fii mu taralee nii fii la waroon a serale fa mu war a serale mu daal fay sedd mu fay seddale so bëggee neexal suufiyé yi soo bëggee neexal wa tasawuf di nga leen neexalee feneen mais wallahi doo leen neexalee suñu kaw wa rabbil kaaba di nga leen neexalee feneen lu dul jël al aaya al quran sunna yi quran aaya yàlla ak sunna yonente bi salaam di ko tor di ko wiñaar di nga leen neexalee feneen waaye du lii jële seen alal may leen dama seeti leen dama raggal leen seen i tànk waaye du nangu mukk taxaw di nga leen neexalee ci quran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii mu jël nii di ko ŋaññee ñenn ci waa sunna dañoo tar dañoo pànk loolu la nit ñi di tasaare loolu mooy tax nit ñi kontaan naan waaw nangam yi nangam jàpp ne su fekkee ne ndiir bi dafa tar rek mënut a ànd xam-xam loolu la borom xam-xamu sunna yi doon taggee moom li muy ŋaññaatee moom la borom xam sunna yi doon taggee Abdullah ibnu Omar radiyallahu anhu من كخبار المعبدة القدرية تساسي الآخر وإذا لقيت أولئك تساه مسلم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وخلينا مدجنا بسك والله العظيم لا إله إلا هو سنغال أمنا تتسو في يو خمنا نيو فيتي كرير قدرين تي ay wax بون bon ci wax تي باس باس يو بون ابن حجر بمي بامي تق صحابي دي سمرة لن لكو تاج كان شديدا على الخوارج فكان يطعنون عليه دفا تران جبل خوارج تا صحابي لي مو داو تكفير خوارج ni la خم خمي دون yi doon teggee خم خمي كريم أم أحمد لأن إذا رأيت الرجل يغمض حماد إنه سلم فاتهم على الإسلام من سوقي سينيت وين عني كده حماد إنه سلم من كوكو دان تو مال كي الإسلام لطخ من فإنه كان شديدا على المبتدع دخ حماد دفترون جملك مبتدع. so deme ci tarjumatul li nga xam ne mooy ulama soo demee ci borom xam-xam yi suñ leen di wax seen suñuy nattali seen dund suñ leen di tagg dama ci téere bu la neex ci téere yi nga xam ne tudd na fay borom xam ne man sirul alaam nubala al misaal bu imam az-zahabi doo dem lu dul su demee ci borom xam-xam yi ba defee fekk la mu leen di taggee man xawi mooy kaana shadidan ala al mubtadi mooy dafa taroon dafa pankoon comme ni Ahmed Dione waxee dafa pankoon taroon jëmale ci yi nga xam ne ñooy waa bidaa doo fa fekk lu dut ne dañ leen di taggee mooy bari radd ci ahlul bidaa ak tar ci tar ci tar ci ñoom naka loolu mën a xëy nekk loo xam nañ ciy ŋàññi ay nit mañ ki xutba di ci sonal nit ñi te wallahi bidaa yooyu nekkoon seenu réew seenu jamono yenn saa yu bari moo féeti suuf bidaa gi tasaaroo Sénégal naka la nit ki mën a amee riira ci am riira ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy gis li xew Sénégal yépp loolu entraîné wut li nga xam ne sax mooy xulu ci moom fekkoon dafa am xulu bu am ci jëmale ci waa bidaa mën nañ ko wutalee gante instant ko am xulu jëmale ci waa bidaa am tar ci ñoom bu ëpp sax kooku dañ ko comprendre ñu ngi ko wutal ay ngin waay waaw li tax sax mooy ne ñii dañoo ëppal moo tax bu dem ba daal di créer ci moom mu am benn tar gu ëppal ci moom waaye naka la Sénégal di melee nii ci bidaa nit ki muy am laxisme moom li gën a yokk ci bidaa loolu dalul lu koo xam ne réer bi am sunu moo dee sam xol yëg nga wala yëgoo ko seytaane am ndax na la am na fu la jaar ba mën la te yëgoo ko nga jàpp ne yaa ngi sunna yaay nga jàpp ne yaa ngi jàmm yàlla yaay nga jàpp ne yaa ngi nekk ci yoon bi baax yaay fekk ne wàcc nga ko bu yàgg di dem wan ko ginnaaw di wëy soo demee ba yi nekk fii nii bidaa yi nekk Sénégal nekkatut mooy lay yëkkati di wax nekkatut mooy li nga li ngay mer mooy li ngay mer mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci sunna di di daal di di weddi euh, mbir yooyu ku topp waxu salaf saalih seeni tagg ak seeni wax ci ñi xam ne ñoom ñoo seeni boroomi xam-xam ci tar gi ñu taroon ci waa bidaa du fu jóge kon ñëw fii di wax nit ñi di ngaññi nit ñi ci taraay seen ci si waa bidaa képp ku jàpp ne taraay boobu noonu taraay la boo xam ne du na yow ci boppam yaaw yaa am problème yow yaa nekk ci réer yow yaa nekk yow yaa yey ñu daal lay joxoñ mais pas ñooñu léegi su fekkee ne taraay boobu daa am loo xam ne da caa nekk lu wuteeg sunna na nga koy indi xam nga wax yu général ah, waxoo ci xam-xam waxooy da ngay ñëw jël benn audio wala jël ab vidéo koo xam ne mi ngi radd ci waa bidaa nga ne déglu leen vidéo bii nii xoolal lii nii du xam-xam lii nii du xam-xam lii du xam-xam ba nit ñi xam ki ngay waxal xam li ngay wax lu mu doon mais ñëw ñu généralité nii rek ñu bari nekk ci di radd nga ne ñëw naa di généralité loolu baatil la looloo gi réer la loolu ay caaxaan la loolu ay tappale la loolu du yoonu ahlu sunna du yoonu xam-xam loolu yoonu ndaxaate la loolu talbiis la loolu jaxase dëgg ak neen la su fekkee daam ñuy radd waa bidaate radd ñu ci xam-xam da ngay joxoon ñooñu wax nit ñu leer ne ñii nii li ñuy wax nii du xam-xam waaye ñu war di maye général ah mbare su nit ñu tontu la nga ne waaw man ñoom jël waxu nit todd ko suñu waxee oh, diw sàngam sax gis nga moom def nañ ko ko loolu du laa yusmin wala yughni min ju' loolu du leen xettali ci dara ci kanam yàlla suñu borom fekkee dafa am ñuy takfir waa bidaa te takfir ba teguñu ko ci dafa diiru takfir du ak réer takfir gi réer mooy takfir gu teguwut ci alquran ak sunna su kenn fekkee ne takfir ngay dàq ci lislaam loolu beneen sa mbir beneen mbir la moom su fekkee ne takfir boobu teg ci baatil la da ngay ñëw leeral ne diw takfir na diw diw takfir na mbooloo sangam te takfir googu noonu ci baatil la waaye ñëw rek takfir nangam loolu baatil la koy xeex yaa ngi xeex fondement ci fondement wa ahlu sunna mu desee ñu benn mbir boo xam ne wax na ko ci majorité la naan loolu moo ko gënoon yitteel waxam ji yëpp li mu doon wiiri wiiri di wër mooy daal di bëgg lu taxoon moom mooy raggal ndiggu waa tasawuf mu ne ci waa tasawuf am na ñoo xam ne ay sunnit lañ am na ñoo xam ne ay am na ñoo xam ne ay waliw lañ waaw su fekkee ne tasawuf am na ñoo xam ne ay sunnit lañ ko am na ci ñoom ñu nekkut ay sunnit ñoo ñu nekkul ay sunnit ndax seen seen yoon war nañ koo war waruñu koo leeral su fekkee am na ñoom ñu nekk waliyu am nañu nekk ñoom ñu waliyu ñooñu nekkut waliyu ci ñoom ndax seen yoon war nañ koo leeral war ko leeral kon jar ngay ŋàññ li gënoon tudd waliyu yooyu ci tasawuf fekk Sénégal lañ nekk xam nga nekkuñu di ci ci xiyaal waxuñu ay yërente ñun Sénégal lañuy wax moo tax ñuy wax ñuy radd olof la nekku ci arab nekku ci français kon suñu wax tasawuf gi nekk Sénégal su fekkee ne ñoo ñu na Sénégal am ñoo xam ne leen radd ay waliyu la lu tee nga génn taxaw daane nit ñi diw waliyu la baleen ko diw mii sunnit la baleen ko waaye dañuy ñëw rek ahlul bidaa nii la ñuy seen yoon mooy la yoon bi la ñuy jaar su may ahlul bidaa yoon bi la ñuy jaar nekkul moom mubtadi man sama radd yi jóguma ci pour radd nit pour daal di xukuma ci moom yoon bi laay wax yoon mooy ahlul bidaa yoon mu jaar mooy yoon ahlul bidaa ndax waa ji mubtadi wala mubtadi loolu dugguma ci saa yi mu ci bëggee dugg naa ci dugg ku munti doon rek nekkul lu ma yitteel man jamono jii nii diw mun xaarif la diw mun xaarif diw mubtada diw mubtada kon moom a gën a yitteel ci rodu yi may def nii li ma gën a yitteel mooy li nekk ci baatil nekk ci ak réer nit ñi xam ne lii réer la ci ku munti jóge jana diw mubtada la benn mubtada la nga mun xaarif la mun xaarif loolu man yitteelu guma ci lii nii may wax ni ndax dama am jàpp ne am na loo xam ne moo ëpp solo pour le moment ci xukma ci ñooñu lu dut lu munta ñàkk moo tax saa yi nii su ma waxee ne waa ji ci ab Euh, li loolu yëfu waa bidaa li ma jublu mooy jëf jii muy def ñu jëfi bidaala mooy waa bidaa ñoom ñooy faral di defee la jëfe noonu waa bidaa ñoom ñooy euh, ñëw di wax wax yoo xam ne wax yu général lay doon am na tasawuf am ñun ay waliw waaw wax ñu ñoom ñooy waliw yooyu tasawuf ñoom ñooy am na ñoo xam ne sunni lañ wax ñu nekkee sunni ci ñoom لعندك واحد يواجه الجهل ده الجهل مركب اكو خمر السنه ku xamul bidaa mooy سنة sénégal yi ñu nekk galan tasawuf googu ña ca nekk am na ñoo xam ne ay sunni lañ léegi tasawuf dañ koy الصوفية السلوكية الصوفية الخرافية الصوفية الطرقية للا الصوفية لي تخ لنتو بري ني ديكو اندي موي أه... لموسخ lire kat yi feuilleté kat yi page parce que amna yo xamné xam yo xamné kuy feuilleté rek mokay def ak ko xamné ta'sil dafa dafa dess ci yow suñu ñu la suufiya ak ak sulukiya mooy njëlbeenu tasawuf ay nit ñoo xamné dañ leen di gis so xolé sen pass pass ci asma wa sifat mu dëppoog ahlu sunnati wal jamaa go xool sen pass pass ci la nga xamné mom moy القدر مدبر أهل السنة والجماعة يخابس الأسفقس الأحكام والأسماء الأحكام مدبق أهل السنة والجماعة يخامي لين بن تزهدو غو خامنه أمنا بن مير غو خامنه لوتي أبتي برابر لغا خامنه موي زهد نحمل ينتي بي صلى الله عليه وسلم خام كو تيوا تي بروم خام خام يغا خامنه نيبور خام السنة قد يوم تي أصول يبدأ يدبو أهل السنة والجماعة نعم مهم بن بلس تزهدو غنعمه ñu xamee leen ko ci zuhd googu ñu yenn saa ñu itlaq ñoom suufiya ci ñooñu lañuy wax ci suufiya yooyu am na ñoo xam ne ahlu sunna la shakk lañ nekkoon dégg lu baax da day mu ñu bari dañuy talbiis ay jaxase xelu nit ñi ci lu leer nañ jël ay mbir bu ko dugal ci tasawuf suufiya ñenn ñu leen tuddee suufiya ay nit ñoo xam ne nit ñu leen na xam mooy zuhd nekku na ab kuréel bu daan waa suufiyee ñu ngi ne sa tasawuf mi ngi ne ay nit la ay benn benn nit ñaar nit ay ñoo xamee ne leen li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla suñu borom xamee leen loo xam ne moom mooy yenn ci ci euh, dëddu li nga xam ne mooy mooy dëddu àdduna yenn saa bu rek ci anam goo xam ne anam gu ëpp bu féetee kaw dëddu àdduna gi nga xam ne mooy lu lislaam daal di jànkal yéetlaak ci ñenn ci ñoom ñooñ suufiya ñooñ nga gis yenn téere boo xam ne comme Cheikh Islam Taymiyya muy itlaq ci ñoom ne ñii ahlu sunna lañ wala ñii ay ci mel ni yenn am na ay wax wax yu ci mën a am mais tax ñoo jóg ci Abdul Qadir Jeylaani boo gis ko leen fay wax ko ci al Junayd donte am na mbir ñu mën a taxaw waxtaan ci mbir yooyu mu nga tudd Ismaïl al-Harawi ak yeneen yoo xam ne yenn saa yi tudd leen Cheikh Islam Taymiyya Ibnu Qayyim tudd leen ñi nga xam bokk ci ahlu sunna ba pare ñu leen di woowee li nga mooy saadaatu suufiya mooy lan moo taxoon ñu cay ñu cay wax loo may ay suufiya as-sulukiya ñu dem ba suufiya am mbir yu ca dugg ñu ووحدة suufiya alxuraafiya alxulul daal di dugg wa waxdatu wujud dugg waxdatu wujud xulul naam اتحاد دوغو لب نتنكو تنكو الحقيقه الحقيقه المحمديه الباطنيه اك نوكو مونتي تودي بس بس تامبالي دغ تامبالي ووتي نيوم نيوم سما نيوم غلات الصوفيه نيوم نيوم ما فيه احد بني تخاو كيب كو جيم خرافة يوي كو تخاو نكي كي اب صوفي لا بو لا te ci jamono jooj nañ tàmbalee nag mu suuf yi nekk am mbooloo nañ koy dugal maqalaatu islamiya boole leen ci ñi nga xam ne dañ leen di boole ci kuréel yi nga xam ne mooy kuréel yi am ci lislaam waaye ba nga xam ne mooy assulukiya loolu nekkuloon kuréel ba naan waa suufi ak waa waa sunna dégguloon baax as-suuf yi ak sunna maa fii yi nga xam ne ay xuraafaat te moo senegal bokk nañ li nga xam ne suufee yi nekk foofu yëpp suufee xuraafee googu da ca am موي جم الحقيقة المحمدية وهم كانت جم الحقيقة المحمدية قم لقى خمنا موي آه الحقيقة تعود المناجر الباطن امبير ام ظاهر اكا اكا اك باطن خرافات لول كوك قم دنقا ووتك قم تلقي نحن موي اصل احد السنة والجماعة نعمنا يرن يوم تلقي لقى خمنا موي علم nga xam ne mën a talaqi ahlu sunna mooy alquran wa sunna ñu yokk ca li nga xam ne mooy ay gént ak tariqatu tijaaniya fu mu jugee dul ci ay gént naka ngay mën a waxee ka nga xam ne léegi moom moo dugg ci tariqa tijaaniya kooku suufi sunni hada lu mën a ne ka kayif kii gëm ne tariqatul tal léegi ni yoon bi ñuy ji talaqi leen mooy ilm nekkut alquran ak sunna bokkul boo leen ci leen mooy gént kooku ban borom xam-xam wala ahlu sunna moo def ne kii ab suufi la sunni kayif naka la ñuy buna boolee taal ak taal mubtadi la su sunni la kayfa naka la nit mën a gëme ne am na beneen yoon bu mën a jaar pour jël sharia beneen mënu jaar pour yoonal bu nekkul yoonu alquran sunna da koy jëlee ci génn bépp tiijaan ki ko gën a baax mën tëdd a baax ku ne tuddal ku la neex li fa gëm ne mën nañoo jëlee diine ca gént ndax gëmu tarixam boobu lu ci génn tariqa tijaaniya walla mu jële ko ci lu piir mooy illusion mooy ne yonte moo jàkkaarloog moom tariqa tijaaniya amul benn silsila bi nga xam ne si yeneen tariqa suufee yi am nañ ko مجنبتي علي ابي طالب ده انت تصير تريب سن استريب باطل علي ابي طالب برا بريء منهم وهي طريقة تيار موي طريقة بينا من ممكن يوم طريقة بينا امر سلسلة بتي علي ابي طالب دايركت مالك جلت النبي صلى الله عليه وسلم نجم له نقول كوكو سني كيف يقول سنيا هذا والله من يقول هذا اكبر على راسي كيف tariqa boobu noonu kooku dafa ñëw gëmloo leen ay shuruut su ne ko ana alquran amut ana sunna amut yenente bi sallallahu alayhi wa moom ma ko jox kooku ñu gëm loolu nekk tijaan yi nga ne ma taris nga ne ma sunni kayfa yakunu sunniyan lan mooy sunna ci yow wax ñu lan mooy sunna wax ñu lan mooy sunna kayf kalmay sunna ñeneen ñëw mu ne seen seen werd mu gëm ne dafa koo jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it amul benn silsila ba ci ali bi talib ci géej gi laa nekk jox ma ñetti werd yi bu ñoo jox nit ki gëm nga ne xawsa sunni te loolu may gën a ndaw nga demee si ñoom am na ay sunni kayf kon nit ki kañ lay doon sunni kañ lay doon mubtadi su fekkee ne mën naa gëm ci la mooy usle bi ne mën nañoo jëlee feneen li nga xam ne mooy aslu sharia تفر القرآن السنة تمجو تلقي موتي تيون دي دم نغني كوكو سنت لا كيف بل برو ابو مونا واخنا اب صوفي تي سوني واخي صوفي جامونو جي نينتي جيبلو موي تصوف واخي صوفي ان تانكو كوريل موي صوفي الخرافيه دغنا موم بدا صوفي صوفي الطرقيه سنغال دي فنيك يا اب صوفي الطرقيه لا اخو في بدع موي داري صوص بدع لي خا خامني موي طريقه yàlla ne wala istaqaamu ala tariqa yàlla benn tariqa la ñu si topp la mooy tariqa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu jël def ko ay turuq taqali jullit ñi jël ay shuruut duggal ci ay xuraafaat jël suuf ya xuraafiya gi duggal ci rek suuf ya xuraafiya turuqiya kan ci borom xam-xam moo lay wax ne kooku am na benn suufi bu nekk sunnit xaw ma sa dafa waat lu mel ni kayif li borom xam yi wax suufi yi nekkoon sunnit booy suufi ya sulukiya gi xam ne amul dara lu mu laaj ci ay kuréel تسلم فيها طرقيه لصوفيا الخرافيه كيجسن جلبين عين تهم زود لنك نكتي عقيده اهل السنه والجماعه بس صوفيا طرقيه نيوي صوفيا جي خامن موموي آه، الخرافيه كيبكو اسكن الاسباب كي بن طريقي كي بطريقه صوفيه انت مبتدع سو فكنا لونكو ويدي دا ngay فيديو ولا leral ñu ne am na ñu nekk ci tariqa te bu ñu nekku ci ay mubtada ñu mëna xam lan moy bida ci yow kel la nit ki nekk mubtade képp ku askan sa bop ci bépp tariqa sufi anta mubtada so rek nekkoon mubtada kan moy doon mubtada ko askan sa boppam ci al irja yakunu morje mubtada ko askan bop ci khawari ya ko yakunu khariji ko askan bopam ci qadri ya nekk nekk bu qadri mubtada ko askan bopam ci ashari nekk bu ashari mubtada kan kenen ku ñu askan bop ci tariqa fa huwa sunni te lépp ñun ah, ñu ñu sos ko ci diine yàlla ji lépp ñu wàcce ci ci usul ahli sunnati wal jamaa kayf kon li baatil la li nga wax naan li ñëpp ku mën li ngeen def ni li ñëpp mën mooy wax boo xam ne bi duuni dalil bi duuni burhaan di wax di sànni faare kalam faare am na ñoom ci ay sunnit am na ñooy wali lan mooy wali pour yow ñii naaw ci jaww ji ñoom wàllu yooyu Matar Sarr mii di tàccu say wax na danga am na wàllu moom lan la gëm ci wàllu yi daa leeral nga jullit ñi Sénégal lan mooy wàllu yi ba nga dugal seen am na ci ay wàllu yi xam nga ne Sénégal suñu waxee wàllu yi ñoo xam nañu jàppee mooy wàllu yi mooy kat ñoom ñëw taxaw ne waa am na ci ñoom ay wàllu yi daal di dëgëral su fekkee ne yow sax la nga jàppee wàllu yi mooy déggin bi déggin te jot jot nañ na rek sa sa réer eggul foofu moom mooy ne wàllu yi moom li nga jàppee mooy li ahlu sunna jàppee wàllu yi mooy al muminuun al jàpp nañ loolu nga jàppee wàllu yi mais ak talbiis nga xam ne senegali ñoom suñu waxee wali xam nañ ne jàpp nañ ñoom mënuñoo doon wali lañ jàpp ci ay wali moo ñu xam xam lu xayb dañoo dañuy naaw dañuy dem euh, euh, dañuy day day dañuy xam leen xam ci li nga xam ne mooy lawxil mahfuud ay xulaafaat yu bon lañ jàpp ci wali nga ñëw taxaw sénégalais daan leen ci ñoo am nañ nekk wali daal di noppi yow lii la jullit ñi anta naasix wallaahu almustaan li mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko indi ci ci vidéo bi nga xam ne ni mu àndal ak réer ak lu muy gàtt yépp te wallaahu almustaan te li yéeme mooy dañuy taxaw di seytaan dañuy gis ñu taxaw di ci ay débat ñàkk fayda dañuy taxaw te ci discuter ci politique ci àdduna ci nangam ci naan la nangam ñu taxaw fekk ñu xam dañu wax ñu ngi nekk ci biir sunna bi ñu taxaw di jaxe di joggati sunna waa bidaa jël leen di leen dóor ci waa sunna saa bu ñëwee daal di dolli ñu taxaw di seetaan mu xas di lay di gën a bari suñ taxee ne la waroo wax kenn du wax mais waroo wax dañuy toog noppi ko ci xooti sëriñam tuuti rek waxuma sax ci tariqa yi ci ñuy wax su nit koo ci cof sëriñam tuuti kaale ga cof ko dañu jëg taal yëkkati àdduna kuñ taxawee di joggati sunna yéen sallam dañuy toog noppi bal di xeex ñuy wax ba pat na ngeen bëgg yonente bi wala kadabtum wallahi loolu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam يعني ساعات ذاك السنه دي خير تصوف فاكر انه بي تصوف تعصب تي تقديس الاشخاص والله العظيم يعني ديغ نيو خامنا اي سنه ديغ نيو واخني ني يعني ني امول لو لين ووتالي تصوف تي دي خير دغ تي جوغاتي دغ دي خير ني ني ني تاساري دغ نخ رك دي باغ نيت ان باسكو لان سينو سيرين توتي di jël ay waxi nit lu mënti doon di ko jéem a defar lu ko mën a defaree ngir bu dëppoog sunna donte xam nga ne laa wuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam janna nga noonu nit donte xam nga ne baatil li muy wax lu gën a yées taasub gi am ci ci àdduna bi jël ay nit teg leen ci place yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare am ay iddiaat nekk ñu koy ñu koy prétendre di xoolee nit ñi nag li nekk seen feebar yëpp ñu jàpp ne ñeneen ñoo ko am soo leen déglu ñoom ñëpp ci yéene la ñuy wax rek soo ñu ne insaaf te insaaf dañ koo sori yéene nit yéen ah, war wax ci yéene te soo wax lépp fu luñ koy basé ci yéene nit ñi lañuy lañuy nekk wallahu almustaan léegi mu dem ba léegi nag mooy lan xalaalun lana wa xaraamun aleykum noppi leen tëj leen seen gémmeñ ci ñun suñuy réer ñun ñuy wax ci yéen salaamaaleykum wa rahmatullah